ci ñu yàlla yónni ak i ñu ñam ak i saxaabaam mboolem seen ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbokk yëpp nuyu yóbbu islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñëw nag di xam ne ne bis bi tey ñu nekk te mooy altine fukki fan ak ñeent ci diggu tabaski di ci atum mil quatre cent quarante et ci gàddaay bi am tosin bis ne tey walla guddik biig guddik altine ñu xëy suba di altine di fukki fan ak ñeent ci diggu Tabaski la fi as Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke jóge woon kon dafa mel ni bis bi dafa dellusiwaat nam doone woon guddik altine guddik altine ñu xëy suba di altine ren jii dafa dellusiwaat waaye bis ne tayit di aj doonoon bisub ajjuma fukki fan ak ñeent ci diggu tabaski ci atum 1333 ci gàddaay bi junni at ak ñetti téeméer ak fanweer ak dëppoo ko le 23 neuvième mois ci la boroom xelxum sëriñ Saaliw sama sëriñ ci la gane woon àddina kon gis nga bis bii dafa alaadawe bis bi ci la sëñ Saaliw gane àddina waaye bis bi ci la sëñ Abdu Lahat génne àddina bisu sëñ Saaliw ba guddi euh, bisu àjjuma la woon bu dee sëñ Abdu Lahat bisu altine la woon ci guddi altine ka la bi liggéey di fukki fan ak ñeent ci diggu tabaski ni mu amee ren rek ni mu nekkee ren ren yi fukki fan ak dibéer ñu xëy suba di fukki fan ak ñeent noonu la amee woon ci wàccug liggéey sëñ Abdou Lahad waaye yemul foofu bis bii bis bu màgg la ci yoonu murid de waaw bis ni tey la sëñ la sëñ Abdou Xaadir imaamul ayimma euh, as sunniyu nga xam ne nituk sunna la nituk sariya la sëriñ Abdou Khadir moomu bis ni tayit la doonoon sañ Tuubaa de ndax nañ xam ne guddi gi si yëpp daal wàcc liggéey rek la yan bi ñëw ci moom la lépp ñëw ci moom kon bis bi tamit la sëriñ Abdou Khadir doonoon sëriñ Tuubaa kon bis bu màgg ngeen ni ci yoonu murit bis bu sëriñ Abdou Lahad gane ci àddina sëriñ Abdou Lahad boo xam ne sëriñ Saaliw ci la àddina sëriñ Abdou ci la génn àddina sëriñ ci la doon sëriñ Tuubaa ah yaakaar naa bis bu mel bu am ñetti événement yi daje ci ci yoon wi yaakaar naa néew mu amul ne waaye jafe na kon nañu xam ne tey bis bu màgg la kon incha allah danañ fas yéene waxtaane fàttali konte ak yéen ci sëriñ Abdou Ahad euh, fanam yu mujj ñu mu def ba ni mu wàccee liggéey incha allah danañ ko xam nga sëriñ Abdou Ahad discours public bi mu mujj a def ak nit ñi mooy Koriteg ci la sëriñ Abdou Lahat mujj wax ak nit ñi publiquement mi ngi gën a àddina guddik altine fukki fan ak ñeent euh, ci Tatachine 1409 kon bañ ko waree ba am weer ak fukki fan ak ñeent ci la liggéey discours bi mujj a wax ak nit ñi korite googu la ko defoon boo demee ci marsiya bi euh, Sëriñ Mortala Jaañ defal si Ibrahima da nga ko fekk mu naan korite gi mu mujj a dajeeg murid yi waxtaanu tàggoo la wax ak murid yi discours boobu yaakaar naa ko ko dégluwaat Euh, dégg nga ci daan wax ne amul kenn amul ci ñun kenn ku ku gis sa baay kon nag na xam ne deful ab soxwaay maanaam àddina kenn nit ñun amul ko gis baay kon àddina du soxwaay wax ne ñëwuñ fi ngir nopp la mbaa sax di dem discours boobu yaakaar naa ñu bari dégg nañu ko kon discours boobu rek buñ ko analyser buñ ko setantalee danañ xam ne Sëñ Abdou Lahad danañ tàggatoo ak bi ñaanal jullit yi nag ba noppi daal di dem dox fa diggante kàggu ga ak Cheikh Bamba romb jumaa ji nit ñi dara wataam ba romb fa buntu kër gu mag jàll dem këram cey maaka yéem bur yàlla sax na fa ab diir ci këram ga génnul ngir tàggatoog mu ndeef yi mbàkke juumul mu ne fukk fukk ak juróom ñeent ci weeru kori di alxamis la génn Tuubaa kori wa kon benn version nee na bi alxamis fukki fan ak juróom-ñeent ci diggu kor yi la génne Touba Touba bi la yend booba jant bam ne jarañ dëkk ba ñëpp sant waaye am na beneen riwaaya bu wax ne ca ñaar fukki fan ak juróom ya ci weeru kor wi ci atum 1409 la dem la dem la dem la dem Touba waaye lu mën a xew daal ci weeru koor bi te mujjug weeru koor bi daal la dem Touba Belal euh, koor googu sëñ bi doon def discours bu mujj koor googu bisib di wér la woon kon mi ngi noonu sëñ Mortala Jaañ teg ne Touba Belel la yenn boobee jant ba mu ne jëlañ dëkk ba ñëpp sant ñëpp nuyoo siyaare delluy sant ak melokaanoo Mbàkke mel népp jant sax na Belel ñaar fukki fan yu topp juróomi fan la dantiwaale ñëpp kon la tàmbalee alxames boobu fukki fan juróom-ñeent ba diir bi mu sax Belel vingt cinq suur la gisante naa gone yu ndaw yam yoroon namanti koog ñoom boole koog làddanti leen mooy gone yu ndaw yu nekkoon ca ca moom ba fa amee juróomi fan nag bi amee beral juróomi fan la woolu doo ngay woon tool ya maa ko woolu kon bi mu amee juróomi juróomi fan la woolu doo nga yooyu daal di wax ñoom fa mu def seen liggéey ca sëriñ bu mag ba ñooñe yuuxu daal jooy kon loolu tamit événement la bu amoon keroog ca bis boobu te mooy donga yu mag yi dongay tarbi yi yi newoon ca Touba Mouride sëñ bi dafa woolu bi amee belal juróomi fan la leen woolu waxanteeg ñoom wax leen ne bi ngeen fi bi ngeen fi nekkee ba léegi bi ngeen fi nekkee ba léegi mboolem lu ngeen mës a liggéey fii ñu bàyyi ko fii rek def naa ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi kon na ngeen sant yàlla jox leen xaalis jox leen xaalis am na ñu wax ne fukki junne ñaar la am na ñu wax ne fukki junne la ne leen bu ko kenn ci yéen waat dolli ko ngi mucc nga ci yokku nga ci lu ci fas am ko wala nga am fukkam lii la wax keroog ne nañ ko jëndee café ak suukar te bu ko kenn waat na ci ñëpp naan wax ca loolee ne leen nag na ngeen sant yàlla liggéey bi bu ngeen mos liggéey rek def naa ko ci liggéey Sëñ Tuubaa bi kon dafa mel ni Sëñ Abdou Lahad tàggatoo nag yi ci discours bi mu def ci koré wi bisub korite ga di béer waaye tàggatu naag gone yu yam yoroon waaye mi ngi tàggoo tàggatoo nag dongoy tar bi yam yoroon ñu ay mag wax na leen seen liggéey fu mu ko def yëkkati loolu jox leen waaye ba noppi na leen nag lu jëm ci nawet moom bu ma bu ma ci kenn wax dara tooy naag tooyut ak lu jëm ci loolu bu ma ci kenn wax dara seen nawet seen nawet a ngi noonu li may waxee nag ñi ko fekkee ñu ngi fi woon bari lool seen nawet mi ngi noonu lu jëm ci daal tooy naag tooyul kañ lañuy ji bu ma ci kenn wax dara def naa sëriñ naa muy seen jëwrin muy sëriñ Seexuna mu Sëriñ Abdul sëñ sëriñ naa moom it def naa sëriñ Mewnu muy jëri muy muy jëwrinam lii la wax ak dongoy tarbiyu bi mu amee belal juróomi fan ci ne ko sëñ Moxtaar Jaañ indee ne bam mu fa amee juróomi fan la woolu dong ya woon ca tool ya maa ko wóolu daal di wax ak ñoom fa mu def seen liggéey ci sëriñ bu mag bi ñooña yuuxu daldi di jooy ba tey bokk na ci li sëñ bi mujj liggéey mooy trois cent trente trois njulli yi mu mujj yi mu mujj dajale ñetti téeméeri njulli ak fanweer ak ñett am na ci waa këram yi ci bokkoon bis bu jot mu reyal leen fukki xar ak ñaar juróom benn xar bëccëg euh, juróom benn xar ngoon kon loolu euh, bokk na ci liggéey yi sëñ bi mu co def foofu ca belal kon gis nga sëriñ bi mi ngi waaj tàggatoo naag murid yi tàggatoo naag dong yu ndaw yi tàggatoo naag dong yu mag yi ba jox leen loolu mu leen jox wax leen fa def seen liggéey sëñ bi nag continue nag ci noonu wéy ca wéy liggéeyal sëriñ bu mag bi saa su ne daayira yi ñëw di ma woo ci wet gu ne ba ca dibéer ja mu gisee ak daayira ya fukki fan ak ñett diggu tabaski ba mu xëyee ci dibéer boobu rek la daal di ubbi woote boole ca mbégte nekkee nar na joote muy dimanche ji mujj def ci àddina di dimanche fukki fan ak euh, ñett tolloog 17 juin wala 18 juin cawarta ga ak jàmbaar ga ñoo ko làqal lam bëgg def ba kenn amul ñaawu xel di jaxasoog gan ñi ba def leen mbégte booba la bis deful bu dee fi fàtte allahu akbar bis boobu noonu la deme nga xam ne yenn di recevoir di recevoir ay daayira ànd ak mbégte lool nga xam ne sëriñ bi bi ko bàcc bay bàcc gay indee ci fukki fan ak juróom-ñeent yooyu ci euh, koriwa ba mu ko indee bi rek la ko wax ne ko mën ngaa dem Tuubaa ba ñu la nga xam ne yëru fa oto ginnaaw ba nag ci gëstu yi ma am xam naa ñaari génn yu fa sëñ bi génn mën naa mu ëpp ko waaye ñaari moom laa xam ndax ginnaaw korik googu mu kori woon korit mil 1409 ginnaaw kore googu ñëw na ngir nga neew sama kër bàyyi suba teel cuuy yorul otoom boobu sax yaakaar naa sept waa kër gi yeewaguñ soxna taay mooy defar dugg ci waañ rek doon defar ndekki euh, étage la woon mu jékki-jékki si oto bu gaare bi mu yër la gis yëpp laat waaye na sëñ bi yàggu fa boobu alaaj Cheikh mi ngi ci feebar accident bi mu defoon ca la ñëw seet si ko yàggu fa loolu moom sama kanam la dama ko fekk sëñ bi def yàggu fa daal di demaat sëñ bi jugewaat na belal ñëw tubaa yoon wu gàtt boo xam ne sëñ Balla Busa moo ko soxla woon sëñ bi ne moom de mag la te yoonu belal bi taxu koo neex kon bi sàngam nañ dajee tubaa bis boobu sëriñ Abdoul Ahad na belal dugg ci oto sëriñ Abdou Lahad Jaxate moom sëriñ Cheikh Jaxate ñëw tubaa bi mu ñëwee ci kees gu njëkk gi la yam wax ak sëñ Balla Bousso la ñuy waxtaane loolu nag mënu ko wax fii ndax mbirum baatil la dégg naa nett la ko ma laajaat ko sëriñ Abdou ba mu wax ma ne mbir ma demee waaye mbirum baatil la du mën a nettali fii waaye xalaat ko sëñ bi ñëwaat na Touba te kees gu njëkk gi sëñ Balla Bousso la muy wax ak moom ci mbir mu yitteeloon mbir mu yitteel ba sëriñ Balla Bousso waxanteeg moom la mu waxanteeg moom sëñ bi delluwaat belal ku ko laaj sëñ Abdou Jaxate mu sëñ Cheikh Jaxate sëñ Abdou Lahad tàggatoo naag taalibe yi murid yi ndax lam leen wax korite gi lam wax ak ñoom korite ga discours boobu dama ci may dugg muy gudd waaye kenn ci ñun kenn ko gis maami baayam amul kon mooy wan ne àddina kenn du fi sax àddina it ñëwuñu fi ngir nopp la kon discours boobu discours tàggatoo bu leer la tàggatoog dongo yu ndaw yi tàggatoo dongo yi tarbi yu mag yi wax leen fa mu def seen liggéey bégal leen ñaax leen ne leen lu jëm ci mbirum nawet fekk boobu njëlbéerum nawet la bu ma ci kenn wax dara tooy naag tooyut ak kañ la ñuy ji bu ma ci kenn wax dara seenu nawet nga noonu kon waree na moom bokku ci daldi jël sëñ Seexuna mosam def ko jëwriñ ci dongo yi jël sëñ Meewnu def ko jëwriñu sëriñ Seexuna kon loolu beneen tàggatoo la waaye am na beneen tàggatoo nag bu gën a yéeme mooy sëriñ Modou gay pellal sëriñ Modou gay ku xam sëñ Abdou xam nga ko yàgg naa ak moom dafa faatu bisub ajjuma wala bisub alxamis maa ngi werante ñaar yooyu ban bis la ci sëñ bi digle ne nañ ko yóbbu ci sëriñ Abdou Khadir mu jullee ko ay mbokkam ne ah sëñ Modou Gueye mii ne boroomi mbokk la euh, kon dañ ko war a saraxal juróom-ñetti fan sëñ bi ne nañ ko def saraxu ñetti fan ndax Modou Gueye mii mënuma dara am bu ngeen xaaree xayu bis mooy def ko saraxu une lu ko gën a rëy na na na xës seen kaw nu ngeen di def ndekk boobu sëñ bi boppam lay wax buñ xa buñ defoon sarax si juróom ñetti fan sëñ bi di ko fekkee ndax bàyyi mu duggee wax naa la ajjuma wala alxames ci la faatu kon ñetti fan ya bu dee alxames ajjuma samedi euh, ajjuma samedi dimanche la kon alxamis ajjuma samedi mooy doon ñetti fan bu doonee ajjuma ajjuma samedi nga xam ne samedi ba wala dimanche ba wala samedi ba ci dimanche ba ñaari fan yooyu ca lañ saraxal bàyyi bàyyi Modou Gueye pellel mi dañ ko saraxalee ca samedi ba wala ci dimanche ba guddik altine googu ci la sëñ Abdou wàcc ab liggéey kon lam na waxoon ne bu ngeen xaaree xay bis lu ko gën a rëy na xës seen kaw na tëll seen kaw nu ngeen di def kon booba mu ngi junju demam gi moo tax damay wax ne sëñ Abdou Lahad demul belal dee bett ko fa waaye dafa demoon belal di fa xaar dee moo tànn wàccee foofu liggéey allahu akbar ndax foo def vingt cinq jours kon euh, am na lu mu fa doon xaar kon moo ko tànn moo tax belal dëkk bu bu tedd la sa iblaat dëkk bu sa iblaat tànn wàcce fa liggéey te nitu yàlla fu mu wàccee liggéey ah foofa barkeel na foofa barabu ñaanukaay la kon sa iblaat fonk na bel bàyyi muudu gay mii mi sa iblaat waxoon ne mënumaa wute dara am bu ngeen xaaree xayu bis lu ko gën a rëy na seen kaw nu ngeen def ñu saraxal ko samedi wala dimanche sëñ bi wàccu liggéey ci guddi dimanche gi kon bu ñu ko defaan xayu bis sëñ bi laat du fekkee saraxam sos bàyyi mu duggee mii moom la sëñ ab Abdul Ahad laajoon ab gàtt ba mu nekkee Daaru Salaam Burki Barka ngir amoon gan gu ñëw ca moom ci nitu nguur yi sëñ bi laaj ko gàtt taralee ko gan googu ne ko incha allah da nga aji incha allah danga nga aji boobu sëñ Abdul Ahad nekkagul ci ginnaaw bi feebar na fi feebar bu metti bay yónnee ci sëñ ba di dénkaane boo xam ngir yaakaar day génn àddina fekk ba mu joxee sëñ Abdul Ahad ba mu mu euh, taralee ca waali fay moomu ne woon na ko da nga aji da nga xaj da nga dem màkk ba mu feebaree nag di yónnee di dénkaane sëñ bi ne ko xanaa moom daa fàtte la ma ko waxoon ñëwoon naa ko da nga aji te ajeegul kon faatoogul ba ci suma jumul 1982 la ko mm, soxna maam Asta Sylla la yaayu sëriñ Sidi ak sëriñ Moustapha ak sëriñ Dan mu mu mu ànd ak moom dem màkk bàyyi mu duggay moom la sëñ Abdou Lahad waxoon ne mënumaa wuti daraam bu ngeen xaaree xayu bis pour saraxam Euh, lu ko gën a tës seen kaw na tëll seen kaw kon nu ngeen di def sëñ bi daana wax ne mujj gi xalal ju ma laal mu ne ma bàyyi ma moom moom kon mi ngi noonu kon dimanche jooju nag ci la ñëw dimanche jooju ci la ñëw dimanche bi sëñ bi daa yendoo recevoir gan yi yendoo recevoir gan yi ba dimanche lu njëkk tàkkusaan yeewi na daayir yépp ginnaaw tàkkusaan sëriñ bi dem néegub sëriñ baara xuruja mooy néeg bi sëriñ seex baara xuruja defaroon fi imlaat ca keppaar ba fa la sëriñ laat toog kon ñu ngi ci ñu ngi woon ci weer sëriñ laat yu mujj ñëw ba ci semaine bu mujj fi mu toll nag ñu ngi ci vingt-quatrième yu mujj keppaaru sëriñ baara xuruja fa la sëriñ laat toog jataay boobu alxaaji jaxate ma nga fa woon bu mbàkke bool Baye Baara Ndiaye ma nga fa woon ah, sëriñ Abdou Lahad Touré xasaayit ma nga fa woon Baye Moustapha Sylla dëkk néeg ma fa woon fa toog ba ñu demee ba timis di waaju jot sëriñ Cheikh Saliou ñëw na fa sëriñ Abdou Samad ñëw na fa sëriñ bi mi ngi jullee timis ci biir néegu sëriñ Baara Xuraja ànd alhaaji jaxate abdul ahad ture sëriñ abdul ahad ture lu njëkk timis tuuti wax na sëñ Abdoulaye wax na sëñ Baye Moustapha Sylla ne ko wool ma sëriñ Seexuna mu ñëw mu wax ak sëñ Seexuna la mu war wax ak moom te loolu bokkoon na ca lu jëm ca tool ya war ko yónni ca tool ya wala daal ngir maanaam moo wax ak moom la mu wax ak moom la njëkk timis ci dibeer jooju kon mi ngi noonu néegu sëñ Baara Xuraja boobu euh, te sëñ Seex Baara Xuraja defaroon ko fala la sëñ nekk ba ca onze heures trente ci guddi kon néegu sëñ sëñ Seex Baara Xuraja defaroon dañ ko wax néegu sëñ Baara Xuraja fa la sëñ ba jullee timis fa la sëñ ba jullee gee ba sëlmalee gee la wax ak ñoom junj ne daay dem barab suba la wax tàggu na leen kon ne xanaa ah, loolu beneen tàggatoo la nee daay dem barab suba la wax tàggu na leen nee ci ñaari waxtu nag la woote guddig ji wéer ca yàlla lii du joote kon tàggatoo naag murid yi tàggatoo naag dong yu ndaw yi euh, tàggatoo naag dong yu mag yi junju na ne bàyyi mu du peral mënu maa wuti daraam bu ngeen ko saraxalee ay bis lu ko gën a réy na tës seen kaw nu ngeen di def loolu signal fort la ci boppam la doon jublu ndax ba gaañoo ci altine ja ci guddi altine ja lañ soog a xam wax jooju ndax buñ ko saraxoon ay bis it daal du fekk saraxam ji kon booba junjam la boppam la doon junj allahu akbar néegu sëñ Baara Xuraja la jullee gee ba mu ma gee la wax ak ñoom junju leen daay dem barab suba la wax tàggu na leen kër ga oto leen ko woon sëriñ Alaaji Jaxate ba dëkkoon Mbàkke bëgg a dellu mu ne ko suba dañuy ànd Daaru Salaam boobu si Abdou Lahad màggal Daaru Salaam see juróomi fan benn fan da daan dem Daaru Salaam waaye nag suba damay dem Daaru Salaam de am na de muy Daaru Salaam gii maam si ànd dëkk waaye daaru salaam euh, euh, goog àjjana am na te moog alaaji jaxate yaakaar naa soriwuñ lam na ko dañuy ànd dem daaru am alaaji jaxate yaakaar naa soriwut ak sëñ bi lu bari kon ba mu sëlmalee gee la wax ak ñoom junj leen daay dem barab suba la wax tàggu na leen nee nañ ci ñaari waxtu nag la woote guddik di ca yàlla lii du joote woote gii nag mooy lan mooy sëñ bi dafa defaroon ak solerie solerie boo xam ne yàggu fa fa amee deux semaines ci la war a toll ci li ma Abdou Lahad Touré nettali sëñ Abdou Lahad Touré jàng xasida bàyyi Moussa Sall tamit nettali dama ne dafa njëkk a woote mu ñëw solerie bi mu ñëw mu ne ko dama doon xool ba xam ndax mm, baax na bi mu woote waatee nag la ñëw waa xanaa bi mu ñëwee jot a ak moom fekk na sëñ bi dem. lii it bàyyi Moustapha Sylla def na ma ko waaye am na beneen riwaaya boo xam ne nii euh, sëñ Abdou Lahad Touré moom ma ko wax nee na bàyyi Moustapha Sylla bu ko sëñ Moustapha wax mën ngaa dem noppalu ji su ñëwee mm, amoon na méttitu colonne verticale moo ko daan moo ko daan foroteel nee na bi mu koy foroteel ci la sëñ bi sone bi sëñ bi sonee euh, bàyyi bàyyi bàyyi Moustapha la dem nee bi mu Moussa dem mi ngi xooloon benn montre bu àgg bu def foofu montre ba mi ngi defoon euh, mi ngi defoon minuit deux minutes minuit deux minutes kon day mel ni am na ñu wax deux heures am na ñu wax minuit ay quelque kon loolu duñ ci sori waaye daal ñaari riwaay yooyu am na waaye xalaa kulli xalaa lu ci mën a xew rek guddi altine guddi gi moom di fukki fan ak ñeent ci Tabaski ci la dem Sëñ Abdou Lahad mi ngi wàccee liggéey néegu seex Moustapha Bassirou néeg ba fa Cheikh Moustapha Bassirou defoon fa la wàccee liggéey Cheikh néeg ba mu fa defoon nee nañ euh, ca Koroga guddi guddi guddi foofa la fanaan guddi googu fa la Sëñ Abdou Lahad dem ba mu jógee ci néegu bi sëñ Cheikh Bara Khourédia defaroon ñu koy wax néegu sëñ Bara Khourédia onze heures et demie la dem ci néeg boobu sëriñ Moustapha Bassirou defaroon kon yaakaar naa mi kon ci néeg boobu la wàcce liggéey barab boobu nag barabu nangu nangu kaayu ñaan yàlla la barabu nangu ñaan la kenn ku ne xam na ne nitu yàlla fu mu fanaan nitu yàlla fu mu wàcce liggéey ah lu bari ci motam def na ko sëñ Abdoulaye Touré nee na ma mm, bàyyi ma fasile ba mu demee ma ñëw da koo jox caabi euh, bunt bi buntu kër gu mag ne ko demoon foofu alaaji jaxate day dem Touba ndeke boobu mbir xew na xam nañ ne sëñ bi Baye Moussa xam na ne sëñ bi wàcc na liggéey allahu akbar euh, allahu akbar allahu akbar allahu akbar nee na alaaji jaxate ñëw Tuuba sëriñ bu guddi googu ñëw na fa ànd ak sëñ Abibu ak sëriñ Basiiru mo sëñ Basiiru mu sëñ Abibu sëñ Basiiru Faati moo tax Mortaal Jaañ nee na nee nañ keroog sëriñ soxe bu ñëw na fa ca guddi googu ca guddi mook sëriñ Xabibu xànd fa mbir maa ko yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallahi mbir mbiram mi tuutul sëriñ soy fa la nekk fa la nekk ba julli fajar keroog ba muy julli fajar euh, Abdul Lahad sëriñ Abdul Lahad Touré xasaayit moo ko indil darab darab si Abdul Lahad bi nekkoon ci néeg bi moo ko ko indil fekk sëriñ Abdul Lahad guddug jot bu duggee ci néeg bi day jàng xasida day déglu xasida kaset yooyu laa turé defaroon da koy déglu kasetu sëñ bay jaxaate sacc kasetu xasida ba muy dem jóge néegu sëñ baara xuréja ma nga ànd ak cawarte ma ngay riim xasida yi xasida yi na mu ko daan teree heure yooyu di ko riim ndànk ba ni ngay xamee ne dootoo dégg baatam mu dem ba mu jógee néegu sëñ baara xaraja baara xaraja xasida lay jàng di tari di ko rim di dem bi mu àggee foofu it ni xamee ne sëñ ba àgg na ci néeg ba buy àgg rek nga dégg muy teg kaseetu xasida bi xasida gi di jàng nga xam ne sëñ ba àgg na ci néeg ba sëñ moo ne ma kaset ba sëñ Abdou doon jàng doon déglu kaset ba mu doon déglu bi mu indee sëñ so bi mu indil sëñ soxna euh, euh, yi bo si jaaree ngir mu julli bi mu indee ba noppi daa ñëw an yar kaset ba ñu an kaset ba mi ngi fekk bayit yii mooy bayit yu mujj ci kaset ba bayit yi mooy waa jaxtani bi ridaa baaxin lahu karamun yaa man kafaa umriya maa fihi xuflaanun lii de niroo naa ak ma def iblaat nee na yàlla mi aji des te moom teraanga jàkkaroon na ma ak ngërëmam yow mi nga xamee ne yaa fegal sama dund pertaange iblaat de ak dundam ah yàlla fegal na ko ci pertaange te am na ngërëmal sëñ Tuubaa am ngërëmal rasulullahi am ngërëmal suñu borom bay di nga nekk ci minal xadimi ilal maxdumi laa boobu fa la nekk kon nii la demee ci guddi boobu sëriñ Soxna bi nag bi mu ñëwee la wax Abdou Lahad Touré ne ko ci ni mu ma nettalee ne ko demal euh, waaw nee dana ko am na ku mu ko laaj ne ndax mi ngi fi doomam la moo ko daal mel ci geere eh, néewut woon mu ko demal wol ma Abdul Ahad muy si Abdul Ahad mosam ak Seexuna muy Seexuna mu si Abdul Ahad ñoom ñaar ñëw wuy sëñ soxna bu ci kër ga sëñ soxna bi kon fa la nekk ba fajar sëñ soxna bi nag ba muy dem ca fajar nee na leen bu ngeen xëyee bu dara soppi ko li daan xew ci kër gi lépp naam moo tax bañ xëyee kër gi lépp daraan dox ni mu daan doxee mel ni sëñ bi dara xewul sëñ soxee moo leen jox lool moo tax ba bët set ba bët set di altine ñu yenn Tuubaa xibaar ba siiwul ngir ragal dogoo ba sëñ soxee bi moo leen wax loolu allahu akbar sëñ sëñ Mortaal Jaañ nee na ndegem sëñ Abdul moo wuute ak melokaan wa mbàkke lii di joote te yàlla ceeg boroom belal moo làqu xëy bu waaj te xam ne dun bee yàqu guddi ga Cheikh Abdou fanaan fee Touba ba woo belal cey mooy ñàkk ko dig dugoo ba ñi yëg ko ñii diggandeem teewul ñu ne sax bis booba kenn réerul da koy fees dell ci ab natable ba ca bitim réew fu ne ñuy téléphoné la ñu yëgoo yuuxee dellu marché kenn nelawul ñépp dañoo fanaan si guddi altine ci guddi nekk tey altine ci euh, guddi talaata guddi talaata la sëñ bi lañ jële sëñ bi belal indi ko Tuubaa ca benn waxtu nee nañu lañ ko waajal Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko ñaanal Cheikh Abdou Khadir moo ko jullee kaamil alxaan yi ñoo koy teeru fa muy gisee baayam ba ndaw fa taaru te fulkul mosoon Mbacke moo lay teeru yemal xiyam yàlla na gaaw a seeru xuraan yaag leeram nga moo lay teeru suñ biir bàmmeel faaw nang ñu teeru lii la mortaal sëñ mortaal jaañ wax gis nga fi ñu ko denc nii euh, ci daari kaamin sëñ tubaa dëkk na fa juróom benn weer bi sëñ tubaa sañcee tubaa ba baayam sëñ mbàkk kajoor ñëw seet ko ci kër gi sëñ euh, tubaa dafa génn kër gi bàyyi ko sëñ mbàkk kajoor mooy fi jumaa ji nekk dem dëkk fee fi abdu xaar tëdd tey nga xam ne juróom benn weer sëñ Tuubaa def na ko foofu kon sëñ Abdou Lahad fi ñu ko denc tey sëñ Tuubaa def na fa juróom benn weer kon mbokk yi bis ni tey mi ngi noonu ci la sëñ Abdou Lahad wàccoon liggéey doonoon guddi di weer comme ni mu ko nekkee ren ñu xëy suba di altine ca guddi talaata day ñu ko fee ñu ko denc ci daari kaamil yàlla na ko yàlla doole njëggal doole ko leer kon tey ji bis bu màgg la bis boo xam ne ci la sëñ Saaliw gane àddina waaye bis boo xam ne ci la sëñ Abdou Lahad génn àddina waaye bis boo xam ne ci la sëñ Abdou Khadir doon sëriñ Tuubaa yaakaar naa kon bis bu màgg ngi nii lu bis màgg màgg day toll ak moom waaye gën ko màgg dana jafe yàlla na leen yàlla dolli leer ñoom ñoom ñoom ñëpp yokk leen yërmande euh, yokk leen xéewal te taax ñu ci seen barke te may ñu ñu doon seen mbir ya ci zaaxiru ak ci baatin doon seen ragal yàlla ga maanu ga jub ga dëggu ga euh, xam-xam ba ragal yàlla ga yàlla ñu yàlla taas ci barkeem wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu